mbokkanteenoot ci Dakar ne ci ginnaaw bu ñu leen nuyoo dal leen jàmm ci les minutes de l'info mu mel ni coow lu jeexagul ndax ku nekk yaa ngi ci yëy yàb yi coow lan la xam ngeen ko Wally Ballago Seck concert wala sax inauguration wu stade bi ñu dippee eh, suñu maam eh, Abdoulaye Wade coow la nag li tax ma ni jeexagul ndax ku nekk yaa ngi ci yëy yàb bi Adamo wax na ci temps indi ci xalaatam wala sax li mu jàpp ni mooy information yi mu ci xam ba sax daa ci xaw a taqal ki nga xamante ni moom mooy Ndiaga waaye ki nga xamante ni moom mooy ah, pi a ah, pi wala sax ji daal dina ci yëy yàbbi ci émission bi nga xamante ni ah, DJ Yves moo ngi koy def fële ca DTV ci émission guddi gi alors moom bi ñu ko woowee téléphone lim ci joxe comme xalaatam ndax ñoom ñoo géré woon animation bi mix bi benn moment nee na Ndiaga Ndour sonowu Ndiaga Ndour la ñu utiliser de 14h à 17h30 nee na premier partie baa ngi noonu nee na deuxième partie bi nag Turquie yi naar yi ñoom ñoo géré woon conduit euh, fil conducteur bi ak animation bi sono bi sax ñoom ñoo ko moom la ñu doon utiliser. alors deuxième partie bi nag ñi nga xamante ni ñoo si waroon jouer muy Waly Ballago Seck ak Ismaïla Lo Baba Maal Youssou Ndour ak ñeneen ñi ak Kangam ak fali bi nga xamante ni moom bi Wally Seck war a jouer moom la somam doon daw Wally patienté tuuti daal di dem ñenn ñi jàpp ni Wally dafa gedd moom li mu ci joxe comme xalaatam moom ji nee na moment bi nga xamante ni Wally mi ngi dugg ndax benn seede rek la ñu teg tàllal ko seede bi nag dafa defoon ay sélection musique la woon euh, sélection bi nag son Fally moom moo ñëwoon Fally Ipupa bi nga xamante ni Wally Ballago Seck mi ngi commencé war dugg wur def prestation ci la son bi di ñëw alors son bi nag bi mu ñëw Fally yéex ñëw tombeel Wally juste wàcc waaye nag bi Wally wàccee son bi daw Wally patienté na tuuti xëy na nag euh, ci lu mu jàpp mooy incompréhension la wala sax malentendu ndax nee na Youssou Ndour il tenait bien à ce que Wally Ballago Seck yoo yéeg joué ci événement bi contrairement ak ñi sénégalais yi jàpp ni Youssou Ndour wala sax Ndiaga Ndour moo nekk ci eh, ginnaaw coow li moom daal daal dina jàppal tànk ki nga xamante ni moom mooy Ndiaga Ndour wala sax Youssou Ndour ci explication yi nga xamante ni moom la joxe moom pii nee na incompréhension la waaye nekkul yoon ki nga xamante ni moom mooy eh, Ndiaga Ndour moom moo dox pour waa a bañ a yéeg waaye loolu yëpp ay xibaar la leeral yaa ngi bari ku nekk yaa ngi joxe xalaat yéen yéen a ko seen bopp suñu mbokk internet yi Dakar Net wéy leen di abonné seen site d'information bii di Dakar Net dara du leen dëcc